jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu euh, technique bi mbokk yi ñu daal di dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu. Euh, tey nag mbokk yi ñu daal di delloo am mbégte invité euh, commissaire Boubacar euh, Sadio moom nag mën nañoo wax ne commissaire la boo xamante ni tey bu ñu ràññee la ci Sénégal mu nekk retraite commissaire Boubacar Sadio maa ngi lay nuyu. Abdou Khadre maa ngi lay fay di la gërëm si invitation bi nga xam ni defal nga ma ko mu war ma jox occasion boo xam ne. dinaa wax ak say auditeur te di ñaan yàlla kaddu yi nga xam ne ñoo fiy jib mu amaleen njëriñ lool lool lool parce que loolu moo ñu tax a jóg askan bi. Euh, mbirum euh, commissaire bi nga xamante ni nekkoon nga ko te nekk euh, retraite lan nga ci mën a dolli ci présentation bi. waaw commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle la ci laa jële retraite bon li nga xam ni moom laa mën a dolli ci présentation rek ci fekk ni wàllu cursus scolaire la. Euh, lycée village Diagne laa jànge foofu laa amee sama euh, BEPC mooy li ñuy wax DFM tey euh, bi ma koy amee aussi wax dëgg yàlla aussi bokk naa si élèves yi nga xam ne ràññewoon nañ leen fa laa amee aussi sama baccalauréat baccalauréat bi aussi bi ma koy am aussi dama bokk si ñi nga xam ne ñoom la ñu gën a ràññee foofu parce que dama amoon mention bien ma nekk également le premier du jury je crois ma nekk aussi le deuxième ou le troisième du centre d'ailleurs sax loolu moom ma may bourse ma dem France pour jàngi lycée Henri IV bon euh, ma dellu si Sénégal ñoo def concours police euh, admis ci am si aussi euh, note bu baax ñu affecté ma saint ma yore PJ bi foofu Saint-Louis jóge Saint-Louis dakaar Dakar Dakar ma ñëw sûreté urbaine aussi yore PJ bi fii ensuite nekk adjoint chef sûreté urbaine ma jógee nag euh, SU dem Géejawaay jóge Géejawaay nag dem Tivaouane Tivaouane nag fa la ñu événement 87 yi fekk bon euh, sept ans juróom-ñaari at may jiite alkaati yi nga xam ne ñu ne ñoom la ñu rajo woon daal bon radiation bi xëy na pour wax ci moom pratiquement benn émission du doy euh, fa laa jógee ñu dellu suñu police municipale ma nekk d'abord directeur police municipale Pikine ensuite ma ñoo nekk directeur police municipale Dakar waaye si diggante bi demoon naa Congo pour nekk euh, mission des Nations Unies après ci mujjanteel gi nag laa dellu police nationale comme conseiller technique mais en même temps aussi ma nekk euh, may def foofu fonction adjoint directeur général euh, police nationale foo leen ma jógee nag ñu ma ASP ma nekk foofu directeur des opérations fa laa jëlee retraite daal ba nga nii. jërëjëf commissaire Boubacar Sadio xam naa ne suñu laaj bu njëkk ci wàll woowu ndax su ma la déggee mooy. Euh, da nga am benn euh, expérience bu mag a mag a mag a mag jëm ci mbirum euh, mbirum sécurité mm-hmm. jamono jii nag yow yaa ngi retraite mm-hmm. li nga xamante ni dañ ko seetlu ci ay réew mm-hmm. am na doomi réew yoo xamante ne suñu jàngee jaar fi ñuy jaar ba am expérience même ñu demee retraite tamit gouvernement ba wala président ba wala ñu jiite réew ma dañuy soxla ñooñu seen xalaat même su dee dugalaatuñ leen ci fonction publique tamit dañuy soxlawaat seen xalaat fii ci Sénégal suñu njiit yi est-ce que ñoo ngi faral di gëstu walla di laaj ñi nga xamante ni tey def nañ expérience bu yaatoo yaato yaatu ci ci benn secteur ndax loolu am na. Euh, loolu moom la nit ñi di jooy moom la ñuy wax gestion des seniors mooy ñi nga xam ni. liggéey nañu am expérience 30 ans 35 ans ba dem retraite Sénégal moom boo xasee ba dem retraite rek bokkatoo d'abord ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi amuñu trop ci yéen soxla xanaa ay post politique nga nekk ñoom bokk ak ñoom parti xëy na ñu jàppale la si wàll googu mais ñi nga xam ni sax ñoom ñooy diriger yenn institution yi ñoom seen wàllu bopp aussi dafa mel ni aussi ñu ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci liggéey bi pour ñu mën a di taataan seen xam moo tax souvent ñii ñi bu ñu retraité rek ñu ngi toog seen kër ñee ngi seen tool ñee ngi def transport ñee ngi jàpp seen njàmbur di dund si as tuuti li nga xam ne yàlla wërsëgal leen ko. alors que boo demee si dëkk yu bëri États-Unis tey jii euh, Israël yenn dëkk yi mais ay mag yu am soixante dix ans soixante quinze ans yoo xam ne am nañu expérience si wàllu sécurité ñoom ñooy jàppale gouvernement bi. te euh, loolu soxlawul sax nit ki am bureau parce que ak xarala yu bees ki nit ki mun na nekk këram ngeen laaj ko mu xalaat ci mbir sàngam. mu def ko ba pare yónnee leen rapport bi bu ndam amee ki nga xam ne moom mooy diriger institution bi wala président de la république ñoom ñoo am ndam li lu ñu xam sax ku leen ko liggéeyal mais malheureusement fi nag euh, euh, sama compagnie gi moom oh ñu ngi wax nag ñu ngi bind pour seet euh, seen xam-xam ñu baax ko dal askan bi waa mais est-ce que yow commissaire Boubacar Sadio. Mm-hmm. tey du mbiru sécurité rek ndax am na ñeneen ñoo xamante ni retraité na retraité nañ ci beneen domaine. Mm-hmm. mais ci domaine nu euh, sécurité comme ci nga nekk moo tax ñu lay laaj loolu. Mm-hmm. est-ce que tey état bi mun mënutoon sos benn kuréel benn bànqaas boo xam ne. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo retraité woon. nekk ci police. te lu mën di am tamit yéen expérience bi ngeen di am. ñii mën nañu ko bañ a am. ndax yéen liggéey bi ngeen doon def mhm. non seulement amoon na solo ak efficacité te mhm. xarala yu yees yi euh, amutoon mhm. est-ce que état bi na sos benn kuréel boo xam ne yéen du ñu leen bàyyi daal bàyyi seen xam-xam rek mel ni ku jël benn euh, bibliothèque nga bëgg ko taal bàyyi ko noonu est-ce que jàppoo ne waroon nañoo teg benn kuréel goo xam ne yéen danañ leen fa bàyyi euh, ñu leen di saytu di leen di laaj seen xalaat. xam nga moom la wolof di wax ni mag mën na bàyyi si réew loolu nag xam nga mënoo ko forcer nit ñi xalaat li nga wax ni xalaat bu rafet la. lu mel ni euh, ki nga xam ne moo yëlu gendarmerie je crois que côté boobu sax aussi xëy na ñu ngi ciy def euh, ñu ngi ciy góorgóorlu kii jiite armée kii jiite douane kii jiite beneen service public mën nañu xool naka la ñuy organisé ay rencontre yoo xam ne bu ay rencontre formelle sax mu nekk ay rencontre informelle yoo xam ne dafay am weccante xalaat boo xam ne effectivement ñoom dinañ si taataan seet li nga xam ne baax na rafet na si xalaat ñu jël ko jëfe ko mais et ñii ñaa ngi de am nañu expérience parce que aussi mun nga am diplôme am sa agrégation am ak sa doctorat waaye loolu mënul remplacer ki nga xam ne def na def na 30 ans. gis nga man mi par exemple bi ma jógee école police di demee stage mais poste police mooy fi nga xam ne foofu ngay njëkk a nekk foofu di recevoir kii def naa fa presque euh, une semaine wala dix jours mais def fonction chef de poste. parce que expérience la laaj dafa am noo xam ne noonu lañ ko war a doxale brigadier bi fa def dix ans wala quinze ans moo la ëpp expérience foofu donc am na loo xam ne yow commissaire de police bi mun na la ko jàngal donc man yaakaaroon naa ni xëy na euh, yu mel noonu bu ñu ko doon def aussi dina baax d'autant plus nit ki dafa liggéey police xëy na am na noo xam ne noonu la xelam bi fàttu woon mu génn delluwaat si civil yi xëy na dina gis loo xam ne bi mu nekkoon police gisu ko mais kooku effectivement mun na leen ñëw ne leen eh, nii lañ ko doxalee doxalee mais seet na ni ngeen koy doxalee waat parce que mbir mi changé na addina dox na léegi nii ak nii lañ koy doxalee loolu yàgg naa ko wax ñun ñu ngi fii xëy na bu dul man sax samay moroom a ngi fii ñoo xam ne ñoo ma gën ay foofu si commissaire xëy na maa gën a cuure si commissaire mais mun na leen di o di waxtaan ak ñoom di weccante xalaat di leen jox yenn responsabilité di leen jox yenn saytu yi ñu def ko loolu yëpp ngir état parce que danoo yàgg a liggéeyal état wax ma liggéeyal régime wala liggéeyal sànni doomu aadama mais liggéeyal état liggéey liggéeyal askan bi askan nañu fi tax a toog euh, jërëjëf euh, commissaire Boubacar euh, Sadio yow moom xam naa ne président Macky Sall bu doon teg kuréel googu moom bay woo ñi nga xamante ni ñoo dem retraite gëw mën a yow di nga ci bokk mm-hmm. li ko waral mm-hmm. mooy dañoo gis ne Euh, yaa ngi bind ay contribution di wax sax xalaat ci ni nga xamante ni tey moom lañ yoree réew mi ci bànqaas yu baree baree bari ak ñi nga xam ne ñoom lañ euh, ñoom lañ dénk réew mi xam nga nag euh, dañ leen a dénk mm-hmm. te nit nag soo ko dénkee jàpp naa ne am nga sañ-sañ di ko may nopp ak di ko may bët mm-hmm. boo ci amee xalaat tamit mm-hmm. nga wax ci sa xalaat mais yow gis nañ ñu bari ñoo ngi wax seen xalaat mais yow da ngay def ay contribution yoo xamante ni day dafay faral di tàng jër jër jër ba nga xam ne ñu bari ñoo koy wax. Euh, lan moo waral loolu euh, commissaire. dara xanaa ñeme dëgg rek te ma jàpp ni dëgg alalu yàlla la yàlla ko moom donc amul benn doomu aadama boo xam ne war nga mën a fees sama bët ba dëgg duma ko wax ak ni ma koy waxee nag quoi xam nga dëgg léegi léegi fekk ni dafa wër wër peng day daal di métti li tubaab di wax rek la vérité quand elle est crue quelquefois elle devient cruelle ki koy wax dafay métti trop ci moom mais fekk ni. Euh, wax ji nga wax nga baal ma ci kàddu yi de mu ngi mel ni tey ji ki nga xam ne waxul dëgg wax dëgg yàlla fenkat la waaw muy commissaire bi man tey jii may commissaire de police waxuma dëgg fenkat la waaw baadoolo bi aussi nekk fële nañ ma baal de daawalkatu saret bi wala jaaykatu commerçant bi c'est bu waxul dëgg aussi fenkat la lu tax léegi fekk ne baadoolo bi la ñi ñi di accepté ñu ne fenkat la bu dee kilifa la nag ñu ne waddu leen seen kàddu mhm. loolu amul fenn distinction boobu amul si diine diine fenkat fetkat nga parce que waxoo dëgg bon léegi nag loolu la ñi ñi di mënu du toléré waaye nag amul sama bind fenn foo xam ne bind naa fa ba saaga fa président de la république parce que dofuma def naa au moins trente cinq ans si police xam naa luy institution comme ni nga ko waxee léegi Macky Sall yëf yi doonnu ko da ko fiy bàyyi kër pale palais bala mu dëkk locataire la pouvoir bi muy am aussi pouvoir yoo xam ne dañ ko ko délégué rek la ñun ñoom moom li nga xam ne moom la yore comme euh, sañ-sañ donc am nañ droit ne ko léegi jox nañ la sunu baat doxalee ko nii na méngoo ak sart réew mi na am ànd ak euh, intérêt réew mi askan bi aussi boole ci yërmande si askan bi mais loolu buñ ko gisule am nañ droit dénoncer ko kooku moom loolu mooy kii léegi nag xam nga tubaab léegi-léegi euh, dafa xaw compliqué dégg naa ñi ñi di wax incendiaire euh, ñenn ñi di ne bon dama impoli yi ñi ñi ne mais dama ne bu ñu jëlee texte bi ci A ba ci Z gisuñu fenn foo xam ne saaga naa fa Macky mais am na koo xam ne doon na saaga Macky Sall mais jël naa man def contribution. bi na ne kii nga xam ni mu ngi nii di saaga Macky amul duraa saaga ko. ba ma défendre foofu sax euh, madame Faye fay sal sa français est-ce que du ma dëgër. non dafa bon xëy na dëgër na kooku si sama tempérament la xam nga reproché nañu ma am na ñoo xam ne sax nee nañu lu tax man ma wax ni Macky Sall warul nekk suñu président loolu aw ma droit wax ko. mais am na ñoo xam ne tey jii nee nañu Macky Sall euh, euh, kii la xew xewul la si Sénégal. Mm-hmm. waaw am na ñoo xam ne am na moo baax si Sénégal. moo baax si Sénégal am na ñoo xam ne fi mu ne fii dañuy ne Macky Sall élu de Dieu la. Mm-hmm. maanaam soppe yàlla la. moo tax yàlla wàcce ñu ko mais ñun seen droit la xëy na si gis seen bopp. Mm-hmm. xëy na seen ceeba ngi tooy. xëy na ñu ngi fas seen soxla yi seen mbokk ak sara mais ki nga xam ne xëy na location de côté wala mu ngi en place ñoo daj ko kenn waxu si dara même sëriñ bi nga xam ne yaakaar na ci moom sax yëkkatuwul ci baat et cetera kooku bu ko neexee mu ne ko Macky Sall sama loraange la loolu nag mooy différence bi ñi ñu ne Macky Sall bénédiction la mais d'accord naa ci mais nañu may benn sénégalais mu ne Macky Sall malédiction la am na ñoo xam ne ñu ne Macky Sall moo gën ay si président yi nga xam ne moo fi mu sa nag waaw man bu ma comparé Macky Sall ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ak Senghor sañ naa ne fi mu nekk fi président yi Sénégal mun a am musa am ñi moo si gën a cuure ñu ne foo ko teg ma ne lii ak lii ak lii ak loolu mooy problème bi c'est-à-dire léegi il faut que mentalité change tuuti nit ki dañ ko dénk suñu réew rek donc warul tax léegi nag ñu ngalab suñu gémmiñ ñu ba duñu sañ wax dëgg nag l'essentiel bul sos waaw bul sos na nga war li nga xam ne bu ñu ko vérifié day nekk dëgg te wax dëgg yàlla man li may yàgg bind yépp amul fenn foo xam ne nit mun nañoo ne ne commissaire da nga def violation secret professionnel mooy lépp loo ko xam ne da nga ko xam ci sa wàllu liggéey ci sa wàllu enquête feeñal nga ko ñun dana am formation bu baax muy officier gendarmerie officier police officier armée ba am na yoo xam ne sañuñu sax dañ koy deewaaleeg suñu bamee waaye nag ci nit ñi réew mi di doxee courant bi di metti ci man di metti samay morom ndox mi euh, euh, Covid 19 bi nu ñuy doxal ak yooyu yëpp détournement et cetera ñëpp di si teg seen bopp et cetera wax dëgg ak wax waxat yi maa waxoon lii waxatuma ko et cetera wax dëgg yàlla am nañu droit dénoncer ko nag. mais euh, commissaire euh, Boubacar si sa contribution yooyu nga xamante ni tey euh, gis nañ ne depuis que ñu woo la ci si contribution boobu nga génne woon Sénégalais yu bari ñoo ngi xaar say contribution day gën a tar wala am na kilifa yu waxtaan ak yow nga xaw a wàññi tuuti. déedéet euh, waxuma ak benn kilifa li ma mën a garantir rek mooy tempo bi tempo bi toujours dinaa ko maintenir. biñ ma jàppee dikk ba ñu interroger ma biñ ma bàyyi ñetti fan après daa defaat benn contribution bu tàng ni comme bi ma defoon loolu kenn mënu ko changer si man parce que du ma inventé dara xëy na nag dina am ñu ñu baax ñoo xam ne dañuy ragal jikkoo jikko régime bi waa bàyyi li ngay def parce que ñii ay saay-saay la ñu sa bakkan mun na si des extra waaye nag fi toll weesu naa fu ñu may xoxotale waay n'est-ce say waajur say mbokk ñoo ñoo sax sees la ne li jaru ko de lu ñuy xam nga li ñuy wax sax dañu ne sénégalais yi jaruñu ko waaw. parce que da nga leen di défendre. nga nekk waaw dañoo naqare xeexal da ngay wax ba seen waaw ñu ne la bés boo duggee si difficulté ñoom ñoo lay njëkk a di la seetaan et waaye nag li may wax rek mooy man mënoon naa toog comme sama moroom retraité yi nekk sama kër ndikk teewu ma añ teewu ma reer teewu ma bu ma xëy jënd sama journal. maa ngi am sama pension lu mu néew néew samay doom ñu ngi may dimbali nu mu néew néew donc aw ma problème yi nga xam ne majorité sénégalais am nañu ko waaye nag li may def par conviction la ngëm-ngëm la quoi ngëm nag boo ko amee nag dara mënu la ci dindi dara dara dara dara. ak loolu ci mën di fekk. ma ci fekk Abdoulaye Wade ngëm-ngëm moo tax mu ñuy dugg kaso di génn ba nekk président de la république keneen ak keneen et cetera fekk ne ngëm-ngëm dafa denc ci nit rek lépp dañ na si yow. donc nit ñi nañu jàppee ne que nekkuma fi di xeex président de la république dama nekk di défendre ay principe te loo xam ne la dem ko gëm bés boo xam ne gëmatuma ko rek damay toog noppi wa ñii eh, def na contribution xëy na yaakaaroon sa damay noppi déedéet lu ma gis rek damay dénoncé. lu ma gis rek benn règlement de compte sa diggante ak Macky Sall. ban règlement de compte Macky Sall président de la République man simple commissaire de police retraité la amul benn musuñu xamante musuñu gisante musuñu waxante xam naa ni Fatick rek la dëkk loolu moom bokk naa ak moom parce que musu naa jàngale Fatick loolu daal laa bokk Macky amul benn relation musu musul yónni nit ci man musumaa yónni nit ci moom wax dëgg yàlla soxlaalu ma ko dara moom xëy na aussi soxlaalul ma dara man nag li tax may wax dama yaakaar ni li may wax njëriñu askan bi la bés bu ma demee ba sentir ne askan bi yaakaar na ni xëy na man li ma leen di waxal du seen intérêt xëy na ma toog jàpp sama njàmbur nag comme ñeneen ñi ñu def officier yu bëri euh, cadre yu bëri ñu ngi retraité toog jàpp seen njàmbur loolu yomb na lool lool lool lool waaye nag Sénégal fekk ku nekk da ko croiser les bras ñii di salfaane alalu réew mi ñii di jël këwél yi di def lu leen neex ñii di détourner euh, xaalis yi ñii di wax lu leen neex après di am façon dundin ngoo xam ne jullit sa warul am dundin bu mel voilà sama xol day métti ci loolu waaw te du man rek am na ñoo xam ne xëy na man am naa occasion di bind ci journaux ak di wax ci rajo mais am na ñoo xam ne métti boobu ñu ngi koy garder seen xol xëy na ñu ngi xaar 2024 pour ñu manifester wu. d' accord léegi euh, commissaire Boubacar Sadio keroog sa contribution boobu bi nga ko bindee avant nga koy publier xam nga euh, liir nga ko liiraat ko est ce que jàppoon nga ne suñ ko publier mën nañ la cee woolu. non mais dama bëgg ñi ñi xam ni que ñi ma yàgg liir xam na ñu gën bind naa lu gën a métti lu gën a tàng loolu. bi jàll tàng na de waaw non waaw waaw mais xam nga euh, tàng na c' est à dire que xam nga di ko wax ni man dama bëggoon. c'est que adjectif qualificatif yi nga doon si bind. waaw am na si moo yoo xam ne tamit. dama bëgg rek euh, Abdou Khare na ñu yëf yi rek ne moom moo sàngam bi nga wax si président lii man ma expliqué la. ñi ne nañu ne nga dëgg dafa véreux am na ñoo xam ne ñu ne ma waaw lu tax nga utiliser le mot imbécile. si biir texte bi mais imbécile ku ku yem CM2 xëy na loolu la moo jox. mais imbécile mooy lan moo koo xam ne dafa woyee di rek. waaw dafa voyé dara loolu mooy imbécile mais Sénégal ñoom boo wax imbécile dafa mel ni da wax nit ki salopard nga alors ah, que ça fait deux est-ce que nit ñi ñoo déggul tubaab mais seen dafa des nag kooku dinaa ko wax ci ñu bëri seen tubaab dafa des mais damay setantal bu baax a baax a moo yi nga xam ne dama ko utiliser ah, ah. te de a te a ba z bu ma xase ba bind amul fenn foo xam ne nit war na fa mën a sukkandiku pour ne mu may xanaa nga pour dama ma doole waaw parce que ci loolu ñu sukkandikoon ne ma léegi dama dama ñàkk ornal président de la république ñu ne léegi dama joxe ay xibaar yoo xam ne euh, wërul du dëgg ñu ne léegi dama jëf ak wax wax joo xam ne dafay salfaañe euh, kuréelu réew mi man commissaire bu tuuti ni man man kot sama jëmm rek man mun naa salfaañe institution réew mi kon xanaa réew mi taxawuñu fu dëgg quand ci biir ci biir laa nekkoon nag Sénégal salfaañe institution da nga fa noonu la yombe yombewul noonu de. léegi euh, commissaire bi ñu la wooloo nag doon la déglu est-ce que laaj nañ la si texte bi ak moo yeeg lu mel noonu. waaw waaw ma ñëw si sama kër. ne ma chef dig bi nee na nañ la jox convocation ma ne leen bisimilah ay alkaati yu baax yoo xam ne respecté nañ ma joxoon ma sama cër. waaw cër boobu ak gëdd boobu yàllaa ko def ci man te ñoom nangu nañ ko. ay policiers ay policiers ak benn officier sax moo leen moo leen leen euh, jiite woon. après ñu ne ma léegi sax chef dig bi nee na nañu ànd ma ne ko bu boobaa bàyyi leen convocation. parce que convocation bi ngeen may ko jox dama yaakaar ne xëy pour lundi la waaye dama war a ànd ak yéen bàyyi leen convocation bi jaru ko ma ne ko boo leen ma téléphoné woon sax ne ma commissaire kaa wuyu ma ñëw parce que dama respecté corps bi waaw bokkul je suis un des rares commissaires néew na ci commissaire yoo xam ne bu ñu attaqué police wala gendarmerie ci affaire corruption ma jënd sama prime di bind man code maa koy def man code maa koy def donc ma àgg foofu ñu ma xaaral chef baa ngi ñëw ki ma fa fekk mooy directeur euh, chef bu bay AG aussi jox na ma sama cër chef dig bi boobu aussi mu jox ma sama cër ñu woon ma këyit bi dam seen naa ko ñu bi sa photocopie article bi ñu ne ma ah commissaire daal pour lii la quoi moo tax ñu oo la quoi ma man xamoon naa ne à peu près pour lii la ñu boole ma benn inspecteur ñu ne ma lii si lii lii nga bind lii est-ce que nangu nga ne yaa ko bind ma ne ko maa bind may responsable bi xaw ma nu ma koy firi si olof mais dama ko ne j'assume la paternité l'entièreté la totalité et l'intégralité de tout ce qui a été écrit dans cet article là ñunu ma waaw ñu tàppe ma ne la xaaral de am na loo xam ne laaju leen ma ko waaye dama bëgg ngeen dolli ko ci li ma mus a bind yëpp si journaux yi depuis presque ñett ñeent at li ma mus wax si télé yi si émission yi ak li ma mus a wax si rajo yëpp jàppale ni man la gàddu naa ko maay responsable ñu ñu tàppe waaw ñu dem ba ci biir ñu posé ma question xam nga moo enquêteur laa ni ñëw aussi ah question yi ma pose bettuma ma te xam naa ni façon question yooyu may posé boo am na ñoo xam ne mënu ma ko divulguer mënu ma ko wax fii n'est-ce pas mais bi ma demee ci biir am na am nañu daal lu ma gis daal mhm. waaw léegi boobu 23 heures ñu ne ma lay commissaire euh, liiral ma liir ba pare ma gis nii loolu la ñu ma tuumaal waaw ñetti accusation yooyu ci laa leen ne yéen da ngeen ma ubbil buntu Rebeuss parce que lii bi Sénégal nekk ba Sénégal képp koo xam ne lii mosu nañu ko teg sa ndodd moom il faut nga àgg si procureur de la république te procureur boo fay àgg mu lay jàllal la donc le lendemain altine bi dama fa war a ñëw 16h30 15h ma préparé samay bagage jël sama sac samay sijaada samay anango samay sewaan yi pour man du ma def sax 5 minutes si procureur de la république parce que bu ma demoon bu ma laajoon te ko wax. ak li loolu amul leneen lu mu ciy dolli. léegi nag soo mu ne ma ma dem rëbës man loolu daal doon jàpp mais 15 heures chef dig bi téléphoné ma ne ma commissaire daal bon bàyyi nañ lépp si suuf daal si tubaab daf ma ne ce n'est plus d'actualité waaw ce n'est plus d'actualité mooy euh, euh, jaratu ko daal jaratu ko fi mu nekk ni bon mais xam nga si tubaab ce n'est plus d'actualité mun na tekk ni taluñu la fi mu nekk nii ñu ngi si yeneen ité xëy na suba ça pourrait être d'actualité waaw suba donc à tout moment daal man maa ngi xaar xëy na ñu oo ma ñu convoqué ma. mais amoon nga avocat bi nga dem. amoon na avocat. waaw waaye xam naa yoon non dan ma man euh, dama leen dan ma fekk foofu. waaw amoon naa fa ñetti avocat yu taxawoon ci lundi bi aussi xëy na bu ma demoon foofu dinaa fa fekk yeneen cinq ou six avocats quoi. yow loo jàpp ne moom la da jàpp ne xoqatal la wala lan la. non kenn mënu maa xoqatal ñoom xam na ñu fi ma jaar yëpp xam na ñu nañu mënuñu maa xoqatal xaw ma lan la au juste quoi. waaw xam nañ ne mënuñ laa ñoo xam nañ ko xam bu démb doon tey da nga ko defaat. waaw a juumoo si dara déedéet juumoo si ko dundee. waaw sama famille sama jabar na ma yàgg naa nekk ak man yàgg naa xeex ak man cest à dama bëgg xam ñi ñi xam ni que bi ma yàggee xeex depuis 87 la ba léegi. am na fanweeri at ak ñett. daa commencé xeex. waaw xëy na ñeneen ñi ñu ngi may commencé xale yi ñu ngi may commencé découvrir mais ñi yàgg man Euh, mun naa si cité ñoom Mamadou Omar Ndiaye ay yore woon journaux yu njëkk yi Babacar Touré mi gaañu faatu yàlla na ko yàlla yërëm et cetera ñooñu ak ñi nga xam ne xëy na ñu ngi woon à temps soppi ba ñooñu ñëpp euh, xam nañ ko yàgg naa xeex bon xëy na nag bon am na ñu bees ñoo xam ne xëy na euh, ñoo nekk au devant de la scène mais mais yàgg naa xeex yàgg te xeex boobu yow sama soxna dama si mun a gunge waaw manifestation bi nga xam ne dañ ko defoon Sandaga jigéeni policier rajo yi def ko sama jabar moo fa jiit midi lañ joxe départ ma ne ko yaay jiitu foofu si rond point Sandaga moom moo fa jiitu ak pancartam ñu jàpp dugal auto police yóbbu waaw jërëjëf euh, commissaire Boubacar euh, Sadio mbokk yéen a ngi déglu rajo euh, Réew mi FM seen émission pencum réew mi léegi tamit gis nañ la suivre naa si télévision yi wala yenn rajo yi wala say contribution mm-hmm. mu mel ni rek yow bokk nga si ñi nga xam ne dañoo taxaw mm-hmm. jàpp ne Macky Sall mm-hmm. wërta def Euh, ñetteelu euh, ñetteelu mandat maanaam waxuma sax ñetteelu mandat mais warul def warul bokk ci jongante yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal yoon mayu ko muy posé waat ñetteelu candidature am wax ñetteelu mandat mais ñetteelu candidature am yoon mayu ko ko yow bokk nga si ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo gëm loolu lan moo tax nga jàpp ne euh, yoon mayu ko ko Euh, euh, Abdou Khare vraiment aussi baax na différence boobu nga def parce que ñi ñi dañuy wax ñetteelu mandat ñetteelu mandat mandat bi réew mi kan bee ko moom moo ko tëj ci loxoom exemple rek laa la jox xam nga Abdoulaye Wade woon nañu doo fi def troisième mandat troisième mandat mais xam nga troisième candidature mais xam nga def na troisième candidature day dem conseil euh, conseil constitutionnel ñu nangul ko ko mais mu présenté wu waaye moom forcé na ba am troisième candidature waaye Sénégal ne ko mandat bi ñun ñoo ko moom duñ la ko jox. Mm-hmm. effectivement waaw donc li nga wax si moo am Macky Sall fi mu toll xam nga dafa waxoon te dama yaakaar ni góor la moom laa yaakaar ni moom góor la te ñun sénégalais yi ñu muy waxal si ay góor na moo tax ma bugg sax li nga xam ne ay kaddu la yoo xam ne jëm na ci ci moom nekkoo ko ñi ñi di jël di yóbbu sëriñ si ñu koy déglu mooy fi muy wax nii lii mooy sama mujjantelu mandat donc bu leen ci bu buñ ma falee 2019 jeex na jeex na jeex na donc waxoo ci sa xaw ma fu mu jóg et cetera ñu jël kàddoom yow bu jox ko sëriñ si ñu dëggal ko bu baax ñu xam ni kii mooy kilifa réew mi kii jàpp ñu jullit at kan la donc bu demee ba wax yenn kàddu yi yaakaar naa ni dafay wéy si kàddoom am na seriñ bu mag boo xam ne nee na kii nga xam ni pour nga jàpp ni góor la da ngay seet est-ce que waxi dëmb mi méngoo na ak kàddu te ak jëfu teew mi fekk méngoo na rek xamal ni góor góor pire la donc Macky Sall moo ko wax si tubaab. moo ko wax si français c'est-à-dire que du ma dugg sa côté juridique parce que foofu aussi c'est simple actuellement constitution bi nga xam ne moo yilif Sénégal nee na kenn amul droit toppalante ñaari mandat moom si boppam wax na ko d'ailleurs léeg-léeg nee na loolu moo tax mu dugal ko si référendum mu 2016 bi et cetera wax dëgg waaw kenn amatul kenn amatul daal def ko moo ko wax waxaat ko bantu bamtuwaat ko léegi léegi bi ñu koy mujjee laaj dafa ne léegi du wax déet du wax waaw parce que bu waxee waaw ay nitam yi du ñu liggéey parce que bu booba dañu ne jeexal na waaw ci laa ne fekk ne loolu la xalaate président bu faible la man maa wax loolu man fekk noonu la ko gisee man dama jàpp ni président boo xam ne la. am nee na moom nee na moom su waxee ne du defaat benn mandat ay ministre ministre am dootuñu liggéey dootuñu liggéey dama ne loolu bu ko defee bu ko waxee bu ko xalaatee président bu faible la président boo xam ne fulla bi des na parce que man bu ma nekk président de la République ma lay fal yow. bu ma dese woon sax benn fan ci mandat nga ne doo liggéey ma dàqal ci biti waaw lu te dan moo ko empêché président ministre bu liggéeyul mu dàqal ci biti xanaa defu leen mënul dàq xanaa ñemewu leen dàq et cetera donc boobu argument boobu ça ne tient pas président Niger bi yàgg na wax ni du def troisième mandat est-ce que tee na ministre mi di liggéey France boo jàllee ba def deuxième mandat ñëpp dinañ xam ne ba sangam ci weer sangam ci la deuxième mandat bi di jeex est-ce que dina tere ministre liggéey donc wax jooju daal euh, na ma baal wax jooju daal taxawul donc dama jàpp ni amul droit def ko léegi xëy na dina forcer parce que si tànk yooyu la nag pour jëm a présenter candidature te bu jaaree si conseil constitutionnel ñooñu dañ ko koy nangul sénégalais yi nag ñoo war a organiser moo tax ma ne wax ji léegi-léegi sax day doy na ñi ñu organiser si quartier yi nañu ñu organiser si communes yi nañu ñu organiser ci village yi na euh, société civile politiciens yi bàyyi seen conférence yi ñuy def ak sa dem si askan bi ci ñi nga xam ne vraiment euh, coono gi ñoom la gën a dal di wax ak ñoom di gën a yee diaspora bi aussi nañ leen mobiliser ñoom sensibiliser ñi nga xam ne diaspora nga xam ne dañuy yónni fi mille deux cent milliards ci xaalis nañuy wax seen mbok yi fi pour que vraiment deux mille vingt quatre vraiment ñu xam ni kii mattal na na fi jóge keneen ñëw mais ñu dimbali leen aussi ci tànneef bi waaw ñu bañ a remplacer Macky par quelqu'un rek waaye ñu yaakaar ñu tànn koo xam ne xëy na kii bu toogee vraiment dina parce que yëf yi du affaire système rek xam nga boo ne système bi la système la daanaka kon président Macky Sall amul benn responsabilité. waaw loolu dafa yomb système bi la mu ngi mel ni tey jii nit ki di sàcc di def wër yëfu wëyu ñu ne non addina boobu moo métti euh, état bi moo ko encadré wul état bi moo ko jóg liggéey moo tax muy sàcc loolu day yomb. loolu day yomb donc question aussi question personne la quoi. ñi ñi daal nañu organiser nañu fexe boo def mobilisation boo xam ne moom bu ko gisee xelam du nekk sane mu ngi ut mandat waaye bu forcé aussi mais urne yi ñi ñu organiser kon ni ñuy def Abdoulaye Wade ñu def ko ko rek jeex na ñu jëlaat sunu mandat jox ko euh, dafa mel ni su ma la déggee ngay wax 2024 euh, da ngaa nar a xeexaat wala da war a yokk gën a yokk xeex dama dama commencé gisoo chaque fois bu ma waaw yow yow yow euh, bu paasee ne euh, Macky Sall juridiquement warul def euh, warul posé waat beneen candidature da ngaa gis ne li ñu doon xaar ci moom. daf ko deful wala li ñu doon xaar ci ab gouvernement am. wala da nga gis ne Sénégal dafa gën a metti askan wi dañoo gën a. Euh, metti ba askan wi amatuñu yaakaar rupture de confiance dafa am diggante ñu ñu jiite euh, ak askan bi yow da nga gis daal ñoom dañu tële moo tax sa taxawaay bii wala da nga jàpp rek ne euh, maanaam juridiquement warul posé waat candidature jàpp naa ne benn juridiquement warul posé candidature am mais euh, seetal dëkk yi États-Unis Barack Obama bu muy bàyyi est-ce que dafa amoon résultat yu bon ay résultat yu baax am na ñoo xam ne dañuy dem fi ñu amee résultat yu baax fële seen mandat di jeex fa lañ koy yemale. du acca mais léegi nag nga dolli ci nag léegi nga am liggéey boo xam ne liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla Sénégalais yi kontaan nañu tey dama ne encore une fois na seet njabootam. na seet ay doomam na seet ay sëtam xam nga ndoono ñaar la kër yi ak Mercedes ak limousine yi ak compte bancaire bu fees dal yi muy bàyyil ay njabootam loolu beneen ndoono la kooku la ñuy wax héritage matériel waaye na leen bàyyi ndoono bu rafet boo xam ne dafa woy bu rafet looy doon ku tas ak doomam ku tas ak sëtam ne waaw sa pap mooy jàmbaro waay moo ne woon bii mooy ñaareel deux mille dix-neuf mooy ñaareel mandat fa lay yem bi daal respecté ko respect boobu ñu koy jox moom mooy law si doom yi ba léegi nii fi mu toll fii waaye nag wax waxet seen papa waxoon lii wedd na lii et cetera dem na ba nga xam ne léegi waxu président de la. Ah, mais est-ce que da nga jàpp ne euh, président bi li Sénégalais yi xaar si moom euh, est-ce que jàpp nga ne matale na ko. ma matalewu ko matalewu ko matalewu ko ñi ñaa ngi gën nekk si coono euh, moom si boppam si wàllu yoon rek déjà ah xam nga ne woon na of naag ay nitam na mais ba kan nga gis ci nit yoo xam ne yóbbu nañ ko of of nag ba jugé ko ba tëj ko amul. te rapport yaa ngi nii ne gañ di génn Seynabou euh, Diakhaté nee na procureur def naa sa table man ñaari fukki rapport defu ci dara defu ci dara d' accord jërëjëf euh, commissaire Boubacar Sadio euh, pour ñu ñëw ci rapport yooyu noonu mais bala ñu ñëw si rapport yi rek benn question euh, benn tontu bu bu gàtt rek dañu gis ne mbirum ñetteelu mandat tamit gis nañ ko ko ñoo ngi koy dégg Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara moom nee na dafay sampaat ndëndëm ba nga xamante ni manifestation am na fa ba am ñoo xamante ni faatu nañ fa jot nañ faa dee. Euh, fi nga xamante ni nag mooy Guinée Conakry foofu tamit euh, Alpha Condé partem ñoom euh, samp nañ ko mais moom waxagul dara lu leer gis nañ problème tamit yi nga xamante ni moo fa commencé am ñu bari tamit dañu gis ne réew yooyu bu si mel ni Côte d'Ivoire amoon na fi jafe-jafe ba la say xew mbirum jamonoy Gbagbo ñëpp ñëpp xam nañu ko fii ci Sénégal nag ñu bari tamit dañoo njort ne ki nga xam ne mooy président Macky Sall dafa bëgg a def ñetteelu ñetteelu mandat te Euh, problème mën na am est-ce que yow tey commissaire yow stratégiquement ak sa xalaat psychologiquement li nga yàgg a gis ci ay réew ndax réew moo gis muy tàkku tamit am na foo xamante ni fa la commencé ab taal ma mënul jékki-jékki rek jàppee tàkk euh, Sénégal gi su président Macky Sall bëggee ne dafay def ñetteelu mandat Alassane Dramane Ouattara ak Alpha Condé lan nga jàpp ne mooy xew si ñetti réew yooyu. Euh, li nga xam ne moo ci xew mooy jàmm moo fa dul nekk aussi ñi ñu aussi dama leen di rappeler ñetteelu mandat commencé wul si Côte d'Ivoire commencé wul si Guinée Sénégal gii la commencé. deux mille deux mille euh, deux mille la commencé Sénégal la njëkkee balaa muy dem ay Côte d'Ivoire ay Guinée yooyu Sénégal lii la commencé ak Abdoulaye Wade te Abdoulaye Wade gis nañu ñaati nit ñoo ci far mhm. waaw lu mot ñaari fukki nit ak ñaar. fukki nit ak ñaar xaw ma fukki nit ak ñeent et cetera. Mhm. fi la fekk Macky Sall doon na ànd ak Moustapha Niass ñu ñuy gàddu xeer ñu ñu ngi dem songi assemblée nationale. Mhm. donc loolu xewoon Sénégal 2012 lu gën a loolu mun na fi xewaat. ah bon ah waaw waaw mënu fi xaar parce que kenn xamul euh, kenn mënu def benn prévision parce que euh, xëy na circonstances yi bokkul xëy na euh, nu mu tuddoo si contexte yi bokkul waaye nag nit ki daal doy toujours day ñaaw njort donc moom ni nga xam ni ci condition yooyu la faloo ba ay fukki nit xale di ci gaañu vraiment na fexe ba deux mille vingt quatre condition yooyu ba ñu am. ba même buy faluwaat sax vraiment mu bañ am kuy kuy kuy kuy gaañoo. voilà mais mais est-ce que jàppoo ne Sénégal mën na copier ndax xam nga àdduna moo toll foo xamante ni tey depuis 2012 ak léegi am na lu bari lu xew. Sénégal lépp lu xew Côte d'Ivoire lépp lu xew Mali lépp lu xew Guinée Conakry day mel ni ci Sénégal xewee. Mhm. Sénégalais yi dañuy am information bi. Mhm. Euh, bu ñu gisee tey par exemple Alassane Dramane Ouattara wax ne dafay def ma dafay def euh, beneen dafa bëgg a def beneen mandat. Mhm. ñu gis manifestation yu bëri euh, te 2012 gis nañ li fi xewoon. Euh, te est-ce que su ko Macky Sall defee euh, Sénégal yi mën nañu wàcc si mbedd mi wàcc yoo xamante ni tey yu kenn foogutoon lay doon. waaw loolu mën na am loolu bu ko kenn dax. mën naa am moom mën naa am bu ko kenn dax te euh, Mali Côte mais balaa Côte d'Ivoire Guinée ñaata nit a fa dee. Mhm. ñu bëri ñoo fa dee mais dafa mel ni aussi CEDEAO ñoom daal par parparloo daal. dañuy parparloo ba nga xam ni pratiquement ñoom si seen décision ñu jël sax kenn faalewutu ko te kenn bon boo xoolee ba ci biir sax en fait da ngay ne ñi ñuy yebal kenn waru leen déglu sax parce que Alassane Ouattara fii CEDEAO CEDEAO jël na décision concernant euh, Guillaume Soro mm-hmm. waaye dañ ko teg fële sandi ne duñ ko respecté Sénégal gi aussi jël nañ décision ci affaire Karim Wade ci affaire Khalifa Sall ñu sandi fële léegi yéen ngeen bëgg ñooñu ngeen weddi li nga xam ne moom ay dogal ci yéen ngeen weddi ko ngeen bëgg léegi mbubboo ñooñu di dem di imposer ay dogal feneen loolu yéen woon maa la. d' accord euh, yaa ngi tudd euh, Khalifa Sall mhm. Khalifa Sall ñu tegoon ko fi loxo moom tam mhm. mais bi ñu ko fi tegee loxo tamit euh, gis nañ ne rapport yi nga doon wax sànq tamit danañ ci ñëw ndax rapport yi barina ay jege ñaale Macky Sall yoo xam ne rapport yi da leen a mhm. mais du ñuy wax guleet ndax peut-être ay rapport yàgg na ko fi def mais comme Macky Sall moom moo fi nekk moom moo fi sos OFNAC nag da koy jox ay liggéey yoo xamante ni du am benn suivi maanaam du am benn njariñ mm-hmm. danañ dikk ci rapport yooyu nga xam ne nag. Mm-hmm. ay milliards ou milliards yi askan wi la ñuy détourné. Mm-hmm. Euh, te du mujj fenn. léegi xalifa Sall dafa am rapport yoo xam ne ni génn na. mais rapport yi gisuñu ne euh, am na rapport boo xamante ni joxar bi na ko ci baaraamu tuuma. ci ay njublang. yoo war a yorin wu baaxul. beneen bi tamit euh, gis nañ fi tamit ñoo xamante ni ñu yëngatu ci wàllum yoon. Mhm. nee nañu Khalifa Sall dañu violé li nga xamante ni tey euh, mooy droit am. bi jëm ci wàllum defendre boppam. Mhm. beneen bi tamit nit ki bu ñu la tuumalee il faut que ñu àtte la ba pare. Mhm. doog wax na yow yaa def. bi jamono ji ñu waxee ne yow da nga def loo xamante ni présumé la. wala dañu njortu. loolu lépp dañ koo violeel euh, xalifa Sall mais lu jëm ci mbiru rapport yi tamit lan moo ci sa xalaat. yi. Euh, moo wax ci nga xam ne léegi léegi moom mooy mooy comportement président de la république ci kanamu kuréel yooyu di saytu euh, daanaka sax mën naa wax ni amul benn euh, ormaalu leen benn yoon. cour des comptes génn na fi ay liggéey muy ñu xarañ ñoo xam ne daanaka lu ñu wax rek jàppal nii rek moom moo am. bi ñu defee seen liggéey ba pare ba jëbal ko lu mu wax mu ne dee créé waat beneen commission boo xam ne ñooñu dañuy saytu ñu lu ñuy si saytu lu ñuy saytu woon loolu mooy lan. loolu ñàkk respect la daanaka sax mooy xëy na ñeneen li ñuy liggéey wóoluwuma ko n'est-ce pas euh, benn. inspection générale d'État. Euh, voilà mooy inspection générale d'État euh, mais balaa boobu ki nga xam ne moo doon directeur COUD te te mu nekk ministre. président voilà président si boppam moo ko défendre. Mm-hmm. waaw bi ko voilà effectivement moo ko défendre et cetera c'est que yow président yow bu ñu tuumaalee nit. wala wala nit ki défendre boppam sax yow sa bopp yaa xam nga président nag bu jàppee ba défendre nit ak magistrat bi nu mu magistrature bi nu a jafe léegi pour juge ñu def beneen situation n'est-ce pas. donc maanaam corps euh, de wu leen daal. fulaalu ah, ci ni ma gisee muy doxalee daal fulaalu leen fulaalu leen inspection euh, générale d'État génne na ay rapport mais ñëpp a ngi doon xaar parce que mbir mu Khalifa Sall toog nañu presque ñetti at yoo xam ne moo nekkoon actualité. xalifa moo def lii xalifa moo def sax mais rapport yi bu ñu génne amul benn boo xam ne gis nañ ko mbiru xalifa te xalifa nee na leen na leen ne rapport boobu dama bëgg ngeen génne ko sénégalais yi gis ko liir ko si njëlbeen bi ba si cappandaw ko ñu xool lan la inspection générale wax parce que euh, inspection générale mënu xool ñu yóbbu xalifa yoon que inspection générale d'État moom Macky Sall xam ne li nga xam ne moom mooy affaire caisse d'avance moom ci boppam ay nitam bénéficier nañu ci affaire caisse d'avance c'est que xalifa day góor de ñi nga xam ne dañoo ànd xalif yëpp dafa leen a tere ne bugguma dégg kenn ŋaang ci ñi nga xam ne dimbale na leen ci affaire caisse d'avance bi mais bu ko waxoon dëkk bi toj bu ko waxoon dëkk bi toj boobu ñi ci bëree bëri ñi ànd ak Macky Sall ñi ko jege ñoom ñëpp bénéficier lañu ci caisse d'avance boobu n'est-ce donc euh, côté boobu inspection générale d'État la fi mu dool fi man ba léegi maa ngi réclamer inspec euh, rapport boobu nañ ko génne Sénégal yi am tous les bi mu tuumaale Idrissa dafa dem rapport bi liir ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii la ñuy tuumal Idrissa Seck am na loo xam ne sax mënu ma fa àgg waaye Abdoulaye Wade bu leen toppoon si loolu xam nga Idrissa fa doon na mujjee kii dugg doon na mujjee nar fa tëj comme ni ñuy tëjee jaa waaye nag Macky président Abdoulaye Wade ànd na xel boo xam ne toppul ñenn ñi ci yenn wax yi mais loolu moo doon seen yéene que Idrissa Seck dem ñu yóbbu ko Kédougou mu def fa presque dix ans wala quinze ans boobu Macky moo nekk premier ministre. moo boobu Macky moo nekkoon premier ministre foofu laa yem rek ci ci ci ay wax donc mais bi ñu ba ci biir aussi mais ki nga xam ne mooy juge Téliko président bi nga xam ne moo yilif kuréelu magistral dem na ba ne ñaari yoon violé nañ ko ay ay droit xalifa la présomption d'innocence mooy bu ñu la tuumaalee fii ak amul kuréel atte boo xam ne ne yaa def dañuy jàpp ni dafa dara violé nañu loolu violé nañu aussi défense am ñi nga xam ne moom la war a défendre boppam seetal boppam et cetera ko ko donc ça veut dire que affaire Khalifa Sall léegi leer na Sénégalais yëpp que mbirum politique la rek pour mu bañ a présenté wu. léegi nag fekk ni Macky Sall léegi moom jàpp na ni liggéey liggéey bu baax. jàppoon Sénégal yi effectivement naaw nañu ay liggéeyam ak jëfam léegi na ko bàyyi mu présenté 2024. waaw mais euh, commissaire euh, Boubacar Sadio lii nga wax tamit xam nga xalifa Sall mënut a nekk euh, maire Dakar. ñu ñu jël maire bi ci moom. mu nekk député askan wi fal te li ma lay wax nii lépp askan wi ñoo ko fal. def ko député askanu Dakar ñoo ko fal def ko maire. mu gagné ay communes yu baree baree bari. mu am sañ-sañ. nekk nekkoon candidat 2019 nga ne mm. loolu lépp euh, kon da nga jàpp ne mbiru politique moo tax ñu teg ko Khalifa Sall te bu ñu ko ko tegee tamit est que euh, yombul tamit mu ñu tëj ko ci kaso bi génne ko bàyyiwaat ko noonu ñu bàyyi lépp mu sedd est-ce que tamit mbir moom mu nekkul loo xam ne lu yomb la. cela mu sedd ci naka de toute façon yóbbu nañu ko suñu yoon ñoom. atte nañ ko léegi dañ ko yi génn na li nga xam ne war na mën a parce que xalifa laajul grâce bi de. Mm-hmm. moom pare woon ak ñi ko dal jàppale yëpp nee nañ dul ñaan benn yoon grâce. te mosul ñaan grâce mosul ñaan grâce nee nee na juróom at yi gannaaw ñoom dañoo jàpp ne dafa war a tëdd juróom at nañ ko bàyyi mu tëdd juróom atam mosul ñaan kenn dara. d'accord euh, commissaire Boubacar saajo euh, li nga xamante ni tey euh, moom moo jëm ci jaloog politique bi maanaam dialogue national bi ñu bari fi mu ne nii ñuy waxee yow nii. liir naa benn député nee na am na ñu nekk ci opposition bi. ñoo xam ne ñoo ngi négocier ak Macky Sall. ñu bari tamit dañoo jàpp ne opposition bu Sénégal dañoo nooy ba lu ñu leen tegoo ñu ñu tegoo ko. ñenn ñi ñoo ngi tudd euh, gouvernement d'union nationale. fi Sénégal tollu nii est-ce que soxla na euh, gouvernement d'union national ak opposition bi nga xam ne ñoom la ñuy tuumaal ñenn si ñoom dañuy négo négocier ak Macky Sall lan moo ci sa xalaat. non euh, actuellement euh, je crois que escroquerie la ñuy wax affaire gouvernement d'union national situation toll crise bi tolluwul foofu parce que du crise politique. bi nga xam ne am na paroxysme boo xam ne war nañ def gouvernement d'union nationale n'est-ce pas Macky dem na présenté na programme am ñu élire ko à cinquante huit pour cent wax dëgg yàlla am na majorité bu confortable boole ci aussi euh, kii assemblée nationale moom moo ko contrôlé justice bi sax mun na wax moo ko contrôlé dara teewu ko loo xam ne war na mën a tax muy créer gouvernement d'union national loolu boo amee rek na nga xam ne dafa tële loolu boo amee mooy dafa tële loolu boo mu amee mooy c'est-à-dire que seen ngañaay bi dafa tax suuf mais ku am 58 pour cent député majorité bi nga am ko yaa chef armée militaire kii euh, gendarmerie police et cetera dara amul leen loo xam ne gàllankoor la pour nga doxal na doxal na bàyyi opposition bi opposé wu opposition Sénégal lañ li nga wax si moo am dana xaw a dese. Euh, euh, am taxawaay am taxawaay dana xaw a yaafuus bon li député boobu wax aussi. mun nañ jàpp ne am na am na opposant yoo xam ne ñu ngi jonkoon doo leen dégg mu ñu critiquer ci euh, Macky Sall xam nga lu tax ñu ngi xaar rek parce que digg nañ leen ay poste pour gouvernement d'union nationale boobu amee yoo nekkal fi yoo nekkal fi ñu nekkal fi ñooñu seen bopp lañ fi nekkal nekkal nañu askan bi waaw ah, tey ñoom bu ñu nekk ministre aussi ci kilifteef kañ la ñu nekk ci kilifteef président de la de la république la nekk amuñu benn sañ-sañ du ñu am benn dogal partage du gâteau rek lay doon waaw mais commissaire euh, li ñu seetlu tamit tey bëri na ñoo xamante ni tey ci askanu Sénégal dafa mel ni dañoo jëppi way politique yi ñenn ñi ñoo ngi ci association yi ak ñenn ci société civile bi tey par exemple tey yow nga wax ñu déglu la moo gën a yomb ka benn politicien mu wax mm-hmm. gis nañ ne coppite googu noonu tamit euh, lan nga ci xalaat mais coppite moo war a am coppite googu moo war a am cest à que parti politique yi c'est une nécessité constitution moo ko prévoir dan fi war a nekk dëkk mënul nekk sans parti politique waaye ñi ñi bu ñu jëbbal seen bopp parti politique yi parce que parti politique da ngay xool ba xool xam ni léegi ñu ci bëri seen intérêt nag fi mu toll fi xam nga du indi changement la révolution citoyenne citoyen seen bopp si association communautaire de base yi si ASC yi si organisation de village si organisation de quartier ñuy fexe daal di gën a yee nit ñi bu ñu xam seen droit ba nga xam ne léegi nag bu boobaa en deux mille vingt quatre balaa deux mille vingt quatre dina am suffisamment de mobilisation sociale mobilisation populaire citoyenne et patriotique boo xam ne lépp loo xam ne citoyen yi décidé nañu day am rek day am mais bu ñu wekku ni parti politique yi ñoo leen di changé dara du leen changé dara mun nañ bokk nag ci xeex bi waaye nañu yëkkati ñoom parti socialiste yi ñoom fekk nañ si biir xeex bi waaye ñoom bu ñu jiital parti politique yi loolu laa gëm daal. Euh, commissaire Boubacar Sadio li nga xam ne mooy euh, coronavirus ci Sénégal. Euh, gis nañ ne jamono ji ñeen ñi sax ñoo ngi wax ne cas communautaire yi ma ngi yokku ñu bari dañoo jàpp ne état bu Sénégal dafa am ay incohérence yu baree bari yoo xamante ni boole na ko ci xeex bi euh, dañ ko gis daal bi corona bi commencé ba léegi nii euh, jamono ji nga xamante ni ñoo ngi def état d'urgence bee couvre-feu bi booba décès mën nañu wax ne amutoon coronavirus bi bariwutoon ci réew mi ñu dem ba nga xamante ni mbir mi tasaaroo na ci Sénégal gi yëpp président Macky Sall nañu dund ak feebar bi nañu vivre ak feebar ba pare expliqué wul Sénégalais yi tamit loolu nan lañ ko mën a gisee ñi jàpp nañ ne waroon a mën a góorgóorlu si jàppale askan wi ci dundin wala dara mais ndimbal li nga xamante ni ay milliards milliards la ni si askan wi war a jotee wala ñi si waroon a jot ñu bëree bëri jàpp nañ ne tamit ay dafa am ci ni nga xam ne moom lañ séddalee euh, marché yeeg euh, yu demee noonu tey ñu ne ubbi leen marché yi suba ñu ne tëj leen ubbi leen yoon yi tëj leen yooyu yëpp euh, ñenn ñi jàpp ne daal ak lajjite la yow lan moo ci sa xalaat. Abdou Khare nga may ma tuuti parce que am na kaddu boo wax mais jotuloo ko développé mais bi ngay wax affaire dialogue national li ma la wax ci njëlbeen bi moom lay wax ba léegi rek ay naxaate kese kese kese la. dialogue bi waaw dialogue bi yàgg naa ci biir article te nee naa leen dialogue bi ñi nga xam ne ñooy représenté benn bokk yaakaar dañ leen na jox mission mission mooy ñu saboté dialogue bi gis nga boo seetloo proposition boo xam ne jóge na si société civile wala ci opposition rek dañ koy gàntal parce que li ñu d'accord ne bu ñu jubóowul si biir léegi. nañ jël yëf yi jëbal ko président de la république te moom mu xool lu muy def kon ana njëriñu dialogue politique bi te dama ne stratégie de tirement la c'est-à-dire que dañuy taaw yëf yi mhm. di ko taaw yi di ko nga taaw ba nga xam ne léegi dañuy jël législative boole ko municipal yi et cetera stratégie lañu donc parti yi nga xam ne dem nañ ci bool dialogue politique am nañ ci responsabilité te danoo ñàkk fu la ñàkk fayda parce que am na loo xam ne bu la ko nit ko wane yoon bul bàyyi ñaareel yoon mu la koy woon donc dialogue politique bi ay ndaxaate kese la Covid bi nag aussi aussi euh, disons que ñu ci bëre bëre dañ ci laaj. incha allah waaw premier jour bi ñuy laaj mooy bi muy recevoir euh, autorité politique yi ak autorité religieuse mais am na kilifa diine boo xam ne bi ñu ñemee ne ko ñëpp obligatoirement dañuy raxas loxo dafa bañ. kooku bu doon dëkk boo xam ne waa pale ba am nañu responsabilité ak fulla dañ koy ni génnal ci biti. doo seet doo àgg si président waaye bàyyi nañu ko mu dem si président président aussi. bu amoon matuwaay bi nga xam ni xam ne ni Sénégal adduna bi yëpp a ngi koy seetaan bi ko sëriñ si tàllale loxo dafa war a croiser banque loxo pour joxe exemple bu booba ñëpp dinañ xam ne a ah, palais bi daal fulla ak fayda ngi si mais bi ñu ñi ñu gisee loolu dañu ne yëf yi sottiwul te kenn ku nekk dafa la digg ni damay créer un comité de pilotage mu wax ko Sénégalais mais mu créé wul euh, comité de pilotage bi xam nga lan la créé commité de suivi mooy léegi ñoom jaan bi bi day romb ñuy dóor si parce que comité de pilotage ma marché yi nga xam ne Mansour moom la joxe comité de pilotage bi moo ko war a joxe te gis nañu marché yi nu mu demee te yàlla leen weer premier jour déplacement rek ñu gis oto boo xam ne dafa këpp ñu gis ne oto mbalit la ah, te fi mu toll nii dem nañu ba ne léegi moom def na économie huit milliards moo tax may question est-ce que expliqué nañu Sénégalais yi ci yan lan lañ sukkandiku pour def xay ma pour ne mille milliards lañ soxla kenn gisu ko fenn dañ tëb tëb rek ne mille milliards lañ soxla. waaye ñii ñi teguñu si baat sax parce que dañuy bëgg yàq même opposition sax ñu bëri boo gisee ñu noppi nii parce que dañuy jouer ak aussi mentalité sénégalais parce que bu ñu nekkoon fii di xarab di critiquer ñi ñi dañuy ne ñi taluñu seen bopp rek lañ tal ñi ñaa ngi di et cetera donc il faut nga comprendre opposition bi côté boobu n'est-ce pas donc euh, yorin bi ceeb bi diwlin bi mais ñëpp xam nañ ko maire yi seeni partisan lañ ko jox huit milliards yooyu mu économiser mais mënu ci woon dolliwaat encore ceeb parce que am na xam ne ñu ngi jooy ba ne jotuñu ko. Euh, léegi euh, commissaire ci lu jëm ci birum euh, Covid 19 bi. Mm-hmm. Euh, gis nañ fi tamit ñu bari nee nañ président dafay jël ay décision yoo xam ne moo xam euh, wax nit ñu ubbi euh, ubbi yoon yi wala yeneen ak yeneen mu ngi jël ay dogal yoo xam ne daal ñi nga xamante ni ñooy médecins yi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu woowu parfois du ñu leen si laaj seen xalaat ba sa ci pandaw ga beneen bi tamit léegi sax dem nañ ba nga xam ne nee nañ ko am coronavirus sa kër ngay sa kër ngay fajoo maanaam daal mu bëri ay rëq-rëq yoo xamante ni gis nañ ne am na si Aly Ngouille Ndiaye tamit nee na kuy dox si mbedd mi mën ngaa bañ a takk masque mm-hmm. loolu yow lan moo ci sa commentaire Euh, li ma ci commenté ak li ma retenir daal mooy Sénégal état bi amul autorité kooku mu amul autorité bon wax ma sax Covid bi sax mais ak yu bëree bëri c'est-à-dire que man mun ma comprendre état boo xam ne port masque port casque ci kii mënoo ko imposer mënoo ko imposer sa citoyen surcharge mënoo ko tere si sa biir dëkk ak yu bëree bëri yoo xam ne vraiment c'est basique quoi dëkk civilisé boo demee loolu doo ko fa mais loolu yow pouvoir public fii si Sénégal mënoo ko mënoo mënoo ko imposer quoi donc comme ni ma ko waxee rek pour affaire Covid bi mais bi ñu ne léegi nañu tëj jàkk ci ak ak jumaa yi mais am na dëkk boo xam ne nee na ñoom duñ ko def. ñi ñu continuer ñëpp xam nañ ko. waaw état bi dellu ginnaaw. Eh, non état bi di seet mel ni eh, dara xewul ñu ngi julli juróom di julli ajuma. lu tax parce que benn sëriñ fa nekk. te sëriñ boobu am na relation yoo xam ne am na ko ak président de la république donc. Eh, relation personnelle dafa influer relation bi nga xam ne état bi moom la war a par rapport aux citoyens n'est-ce pas bon léegi yow nga bàyyi dëkk boobu ñuy julli di def lu leen neex nga bëgg a dem léegi Kaolack di interpeller ay sëriñ Dakar nga bëgg a jàpp ak ay sëriñ ay ay naay ah di leen di jàpp di leen yóbbu police et cetera te dëkk ba léegi ñi def lu leen neex mais loolu mooy indi frustration moo tax ñenn ñi commencé di jëngu ne ñun tam. dañuy tuuti manifestation yi tamit ci biñ euh, manifestation bi mu commencé am ci guddi gi yooyu gis nañ état bi mel ni si la ba dindi euh, couvre-feu bi. waaw mais état bi dafa ragal te dafa teel a daw manifestation yi du manifestation sax dara franchement. Ah, état bi dafa ragal. non non franchement franchement yàgg nañ nekk euh, di def service maintien de yooyu ay xale yu ndaw ay mbuucambu di lakk ñetti pono fi tax ngay dellu gannaaw moo tax ma ne autorité bi état bi na xoolaat autorité bu baax bu bëgg dox bi dëkk bi dox ci yoon. bu bëggee nit ñi respecté ko mais loxol njaay rek nga nga nga nga ñaali euh, et cetera vraiment loolu du rôle état quoi. waaw manifestation yu ñuy wax garaawul garaawaay boobu taw rek ñi ñoo ko exagéré rek xëy na aussi prétexte la pour ñoom rek pour xëy na dellu gannaaw. man manifestation yi ma doon gis la vraiment ay mbuuca mbuuca ko doon def quoi. kooku yëngalul sa benn commissaire d'arrondissement. d'accord mais euh, li nga xamante ni tey euh, moom mooy couvre-feu beeg état d'urgence bi nga xam ne. Euh, amaloon nañ ko Sénégal ba ba jëli ko fi bu njëkk ba xam naa boobaak léegi yàgg na mais ñoo ngi dem doog am occasion pour toog man ak yow mm-hmm. euh, gisoon nañ policiers yi takk der yi di dóor ñi nga xamante ni ñooy askan wi man ni géré woon état d'urgence beeg couvre-feu bi yow lan moo ci xalaat cest à ni ma ko waxee woon rek ci benn contribution c'est-à-dire que actuellement quatre-vingt-dix pour cent sénégalais xamuñu luy état d'urgence xamuñu luy couvre-feu parce que boobu mu ngi gëj am presque en en L4 yu bëri yi nga xam ne dañoo wàccoon ci mbedd bi ñu ci bëri mosuñu dund couvre-feu xamuñu ñu état d'urgence donc il fallait d'abord une démarche li tubaab di wax une démarche pédagogique c'est-à-dire que même boo ko décrété sax mun nga ne dinaa décrété naa ko waaye ñaari fan yi ñetti fan yi léegi yéen ñi di wàcc ci terrain alkaati yi gendarmerie dem leen ngeen def benn méthode pédagogique ko leen tasal bu leen ko dóor bu leen ko saaga bu leen ko amaan sax yedd leen ko yedd leen ko bu ko defee deux jours trois jours léegi nag ñu doo ko réprimer te répression bi du dara du nga jàpp nit ki yóbbu ko commissariat ba wala ngeen yóbbu ko comme jamono ñu leen def temps yooyu yóbbu leen si benn benn bayaal teg leen foofu bu ëllëgee nga yóbbu leen ci ci ci ci procureur de la république wala nga fayloo leen amam mais dóor moo amu ci yoon waaw d'accord jërëjëf euh, commissaire Boubacar Sadio lu jëm ci mbirum coronavirus tamit euh, gis nañ ne Union européenne dafa am ay dëkk yoo xamante ni dañoo wax ne bu ñu ñëw ci seen euh, espace mm. ndax dëkk yooyu coronavirus dafa bëri ñu gis ne Sénégal tamit boole nañ ko ci ci réew yooyu lan moo ciy sa xalaat. waaw mais c'est vrai que Union européenne dëkk bi léegi information fépp lay jàll parce que boo fàttali ko ci crois sa ça fait maintenant un mois ou deux mois ministre de la santé suñu bopp. Mm. moom moo ne on a atteint parce que boo atteindre pic bi léegi yëf yi dootul yokku dafay wàññi waaye yow nga ne il y a un nga ne yokk euh, tu as atteint le pic te yëf yi dafa gën a doubler par rapport ak bi ngay jaaw jamono bi ngay wax loolu mais union européenne ñu ngi suivre ñu ngi am information yi donc dañuy ne ñi maîtriser wuñu seen situation loolu rek moo tax waaw du question fayanto te fayanto boobu ñuy wax aussi del del del del dégg rek ne amuñu doole bu ñu fayanto ak union européenne man maa la ko wax mais est-ce que jamono ji mënuñoo wax ne Sénégal mbir mi euh, ministère beeg ñi nga xamante ni ñoom lañ ko dénk est-ce que mbir mi demul ba ëpp leen loxo coronavirus bi. waaw moo tax man ne damay kalfa damay jaaxle est-ce que am na benn plateforme de coordination. boo xam ne dafay boole ministre de l'intérieur ministre de la santé ministre de forces armées nga xam ne chaque matin kuréel boobu day tase ñu toog di waxtaan di weccante xalaat xoolal rek tout récemment euh, euh, nu mu tuddee ci conférence su Aliou Ngouille bi mais nous sommes pas dans un cas d'urgence sécuritaire. nous sommes dans un cadre d'urgence sanitaire Abdoulaye Diouf Fall Diouf Sarr moom moom moo waroon wax bu waxee ba def description situation sanitaire bi ba pare léegi mu doog a joxe léegi nag parole à Lingu Ndiaye ne ko na point de vue sécurité di ak li ak li lañ jël comme mesure waaw kon cuune la daal ah non cuune la yàgg dañ nekk cuune d'accord léegi euh, coronavirus bi tax na réew yu bari ci Afrique ñoo ngi sàkk ñu baal leen seeni i rawatina Sénégal Sénégal ba mbir mi coronavirus sax ñenn ñi tax dañoo jàpp ne li tax euh, yenn réew yi di baalu seeni bor moom euh, dañu bëgg a taafantaloo ak li nga xam ne mooy coronavirus ndax Sénégal dañu gis ne coronavirus dafa commencé rek président Macky Sall mel ni ku sol robu avocat euh, chef d'état africain yi di wax fenn fu nekk ngir ñu baal ñu bor yi yow lan moo ci sa xalaat. man sama xalaat moom boo vraiment position de principe la amoon dama ne sax ni ñuy ñaan sax ñuy saraxu bo ñu ñu ñu ñu baaleen bor yi dafa dafa yërëmtalu daal waaw dafa mel ñoo xam ne daal dañuy yelwaan man sax d'accord ma ñu ñu baal leen seen bor parce que boori sénégalais yi nekkuñu ko ñoom ñi nekk ci kaw ñoo ñoo dem lépp di ut ay terre di tabax ay stade ci loo xam ne amulul benn njëriñ askan wi waaw seen poche la nekk gannaaw ñoom ñoo ko jëlee seen poche la nañuy débrouiller léegi. fu dem dem dem dem fay yi quoi n'est-ce pas donc c'est un investissement yi ñu def rek. mil investissement yi moo baaxul wala. moo baaxul moo baaxul c'est-à-dire que dañoo am priorité de euh, question de priorité choix yi ñu def. les stratégies de développement ah terre ban njëriñ la am Sénégal boobu ba léegi ñaata yoon la ñuy wax ki te fii ak un an encore du daw li mën a garanti stade ba la ñuy tabax ah euh, ne dañ fay basket ñaata yoon lañ fay basket si at bi xëy na benn yoon ñaari yoon arène ba la ñuy tabax Pikine Pikine waaye soxlawuñu arène de lutte xam nga lu soxla woon ñu yokk seen euh, plateau médical au centre Dominique wala ñu tabaxaat yeneen centre Dominique hôpital Dalal Jàmm bëri ñu jëlaat fa encore yeneen deux quatre milliards dugal ko ci pour ñu am un plateau standard au aux normes kii international yooyu yëpp defuñu ko waaw ñoom li leen soxal mooy dépense de prestige ay éléphant blanc waaw c'est-à-dire que da ngay def xaalis bu bëri ci loo xam ne amulul askan bi njëriñ lool moo leen topp fi mu nekk nii quoi bor boobu nañuy débrouiller pour fay ko dañ ciy taafantul rek comme ni ñuy taafantuloo ci coronavirus bi di régler yu bëri di tere ñi ñi manifester di tere ñi di wax fi et cetera xëy na ni ma la ko waxee sànq politicien mun nga leen comprendre ci benn côté parce que dañ leen oo ñu dem wuyu ci ku si wuyul woon suñu ne bëggoo réew mi bu ñu jógee dañuy jàppale président de la République ci lañ nekk ni waaw coronavirus bi nañ ñaan yàlla mu jóge fi ni mu gën a gaawee ñoom ñu reprendre seen activité mais nag am na ñoo xam ne nag xëy na duñu ay politiciens sama compagnie gi ñun mën nañu continuer di wax di dénoncer yenn yi et cetera dégg nga euh, Mansour Faye ñeneen ñu ngi koy laaj facture pour lu mu jënd ceeb bi ba léegi ci xew ko te waxoon naa général François ne ko yow fi nga jóge bokkul ak fi nga jëm fi nga jóge ay militaire fa nekk ay goro fa nekk ñoo xam ne euh, euh, dañ leen tàggat am na lu ñuy rus am na lu ñuy jommul on nous tue on ne nous déshonore pas et mais fi nga jëm foofu moom ay cesite fa nekk ay ay ay ay ay ay bouquet fa nekk donc pour que nga mën a liggéey sa liggéey correctement dina xaw a jafe daal euh, jërëjëf euh, commissaire euh, Boubacar Sadio ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm mm. waxtu wi jeex na lan ngay tàggoo li may tàggoo rek mooy xëy na kaddu yi dëgër na na ñu ñu jàpp ne d'abord sama tempérament moo mel noonu te nañu jàpp si li may def du sama du euh, du pour sama intérêt bopp comme ni ma ko waxee rek wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax am na sénégal yu bëre yoo xam ne vraiment xam naa ni maa leen tane waaw yërmande nag bi ma am ci ñoom moo tax léegi may yëngatu nii n'est-ce par principe la par conviction dama bëgg réew mi ku nekk gis sa bopp waaw ku bëgg a faju nga faju ku bëgg yóbbu sa doom école nga yóbbu sa doom école ku dem marché wala nga mën a am loo xam ne xëy na boo ko indi kër ga nga mën a am njël boo xam ne c'est normal loolu moom mooy tax yëngatu du leneen du question da nga mer de question da nga da nga da nga mer président c'est-à-dire que sénégalais souvent nga baal ma de Abdou Khadre souvent journalistes yi sénégalais question yooyu la ñuy posé quoi est-ce que tu n'es pas frustré et mais doo gis mu généralement journalistes occidentaux au niveau subjectif ñoom au niveau objectif lañ koy yóbbee est-ce que commissaire bi li muy wax yenoon maana wala yenowul maana loolu la ñun ñu war a seet rek ni mu koy waxee nag beneen problème la ku nekk ak sa personnalité waaye maa ngi ñaanal ñëpp jàmm bu ma sañoon vraiment réew mi dem ni nga xam ne noonu la ko Macky Sall diggee woon mais malheureusement nag réeg bi nag dafa diig waaw léegi nag na ñi ñi préparé wu pour 2024 et vraiment si jàmm ñu jëlee ko fi indi keneen koo xam ne yaakaar ni tasuñu yaakaar te ñu dugal ci bopp sénégalais euh, politiciens yi képp koo xam ne fii defoo li nga xam ne du yoon nañ lay dénoncer. jërëjëf euh, commissaire euh, Boubacar Sadio ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi Abdou Khadre sekk moo nekkoon ci micro bi du Diaw Diallo nekkoon ci wàllu technique bi seen émission pencum réew mi la woon ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw.